waaw maa ngi tudd baabu Khady Dieng nekk opérateur privé semencier euh, tey nag ñu daje woon fii ci primature euh, conseil interministériel euh, di def waxtaan bu am solo boo xam ne nii vraiment mun naa ne duré na presque cinq de temps mais lépp ñuy waxtaan ci mbiru. agriculture na campagne de commercialisation 2023-2024. waaw en tout cas ñun les opérateurs euh, vraiment di wax ne suñu xel dal bu baax parce que euh, yaakaar naa ne waxtaan bi yàggoon na trop mais lépp njëriñ la ba bi ñu li ñu tënk daal mooy li nga xam ne moo dox ci boru diggante opérateur ak état bu Sénégal dinañ ko dinañ ko régler mais loolu amul importance li ëpp importance mooy li nga xam ne moo war a dem ci baykat yi mooy les producteurs loolu moo ëpp solo euh, di wane ne son excellence monsieur le président Macky Sall bàyyi xel bu mu bàyyi xel euh, baykatu Sénégal ndax euh, bi nu fàttali ko ci année bee passé rek budget bi yóbbuwoon na ko ci 100 milliards.

production bi ñu xayma ko mu wara toll ci 1 million sept cent tonnes lolu c'est la première fois mu am ci suñu suñu réew vraiment da lolu motax ñun opérateurs yi euh dañoo nekk ño xam suñu digënté digënté baykat bi ak état opérateur bi mo nekk ci digënté bi kon ñun état lañuy liggéeyal waye nak liñuy liggéeyal état mel ni amna solo parce que ñun dañaa joxe semence bu baax